wa ashaabihi ajmain wa baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokku jullit yi mu mel ni dellu si waat nañ comme niñ koy baaxoo def heure bii bu jeeteeg ñu ànd ak yéen ci tafsirul quraanul karim tey nag ñi ngi suratu nisaa yi aaya vingt-six démb nag ñu ngi jeexaloon suñu borom bi subhanahu wa taala doon waax naan yéen góor ñi bu ngeen demee ba amuleen njëgu lu ngeen takkee ay gor ngeen takk ay jaam mu ne nag waaye wa an tasbiru su ngeen muñoon sax ñàkk takk jaam ya xayrun lakum moo gën ci yéen ndax wallahu yàlla gafurun aji baxale la rahimun aji yërëm la tey ñuy commencé yuridullahu yàlla dafa bëgg li yubayyina ngir mu leeralal lakum ñeel leen ba ngeen xam wa yahdiyakum daf leen bëgg jubal wan leen sunan alladina yoonu gaa ñu baax ña nga xam ne min qablikum ñoo leen jiitu woon loola la leen yàlla bëgg wan <clears throat> mu ne wa yatuuba mu baxal aleykum si yéen wallahu yàlla حليم أجي قملة واي حكيم أجي قرالة ما أجي تغلم بير لونك نم جاريون والله يعلى يريد بغنا أن يتوب عليكم مبعلين ويريد بغنا الذين يقمن يتبعون نيغي توبو الشهوات سين بانيكو بكان ñoom de li ñu bëgg si yéen mooy yahud yaag nasraan yaag majuus yi li ñu bëgg si jullit yi mooy an tamilu ngeen jëng may lan goo xam ne aziman gu màgg la mooy ngeen bàyyi fi dëgg dem toppi caaxaan yuridullahu yàlla bëgg na an yuxafifa mu oyofal hankum si yéen wa xuliqa bindeef na al insaanu doomu aadama daifan mu nekk koo xam ne ku ku lottu la mu ne doomu aadama dafa nekk ku lottu ci kanam li mu bëgg ndax nit ci li mu bëgg ah, nit ci balaa ngaa xam feebulam rek mu jàkkarleeg li mu bëgg foofu la feebul di gën a feeñee moo tax yàlla ne wa xuliqal insaanu bindeef na doomu aadama daifan mu nekk ku lott ci kanam li mu li mu bëgg doomu aadama li mu bëgg rek moo ko jaral euh, toroxlu moo ko jaral suufi suufilu da gis kay ku ñëw ci kanam nit di sukk raam ndax lan alal la bëgg gis koo xam ne mu ngi yaram salu di ñeewant lu mu bëgg fu mu liggéeyee doomu aadama daal kaana daifan léeg-léeg nga gis ko muy euh, raamaka suufel baat ndax lan benn jigéen bu mu bëgg kon nag waxuli xal insaanu daifan yaa ayyuha alladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa taakulu bu leen lekk amwaalakum seen alal yi baynakum seen diggante bil baatili ci neen yàlla nee na kenn ci yéen bu mu nax moromam jël alalam lekk ko illaa an takuna lu dul mu nekk tijaaratun commerce boo xam ne dégg nga tijaaratun commerce boo xam ne da ngeen koy windeel ci seen diggante han taraadin ci d'accord goo xam ne minkum dana jógee ci yéen xam nga alal nit kii li nga jëndee fukki dërëm nga jaayee ko ko fukk ak juróom yàlla nee na loola ci commerce la mën a nekk te day nekk xantaraat yi waaye nga lebal ko xaalis mu war laa fay dolli sa loola moom yàlla nee na daganut moo tax mu ne xantaraat yi minkum wala taqtulu bu leen rey anfusakum seen bopp inna na naka yàlla kaana nekk na bikum si yéen rahiman di leen yërëm yàlla nee na kenn ci yéen bu mu rey boppam képp koo xam ne nii danga koo def dégg nga def nga lu bokkut ak li la yàlla santa wa man yafal ko def daalika loolu udwaanan ngir noonu moo tax mu def ko wa man ak tooñ fa sawfa nuslihi xel su nañ koo lakka naaran safara yàlla nee képp koo xam ne da rey benn bakkan moo xam bakkanab jàmbur la wala sa bos nee na koo def ngir tooñaange te bu ëllëgee yàlla dana la lakk li nga xam ne mooy safara wa kaana nekk na daalika loolu xalallaay si yàlla yasiran di lu yomb moo tax lu mel ni xaru nit ki lu mu am am na xar na moytu xaru ndax yonent bi sallallahu alayhi wa nee na nee na képp koo xam ne dangay yéeg ci kaw montagne nga daanu pour xaru wala nga jël ab paaka jam ko sa bopp ngir xaru bu ëllëgee yowmal qiyaam boo dekkee dañuy fekk sa loxo booba paaka ba nga newoon mu ngi si ngay wëlbatiku waale ak moom sa biir montagne ba nee na tam su fekkee ne euh, poisson moom nga naan euh, pour dee nee su ëllëgee yowmal xiyaam boo duggee biir safara dangay ngay fekk poison boobu mu ngi ci sa loxo nga di ko mar di tu wëlbati ko si biir safara di ko mar noonu ngay continuer ba abadan kon nag mbokk yi dara jël si àdduna nit ki di rey boppam dégg mu ne wakkaane nekk na zalika loolu yasiran di lu yomb xalallahi si yàlla buur nee na in bu su ngeen moytoo su ngeen teetee kabaira ma bu bay bàkkaar yu mag yi nga xam ne tun xaw na def na ko tere xanu si moom yàlla nee na bàkkaar yu mag yi ma leen tere su ngeen ko moytoo rek nu kaffir ñu baxal xankum si yéen sayyiaatikum bàkkaar yu ndaw yi am na yoo xam ne yu ndaw la soo mënoo ko ñàkk def yàlla nee na bakkaar yu mag ya fexe leen ba moytu ko rek su boobaa nag ñu jéggal leen yu ndaw ñu wan dëkkil kum ñu duggal leen mu dëkkalan dugguwaay boo xam ne kariman bu tedd la dégg yàlla nee na su fekkee nit dama koo jox alal yéen bu leen mébét alalu jàmbur wala te tamannaw bu leen mébét maa faddala la gënal na ko allahu yàlla bi bihi sa loola baxdakum ñenn ci yéen xalaa baxdin sa ñenn ña kenn ku nekk la nga liggéey te am ko jëlal loola ta nga dayloo ko li rijaal yi ñeel na góor ñi nasibun cër mim maktasabu sa la ñu faggu wala nisaa yi ñeel na jigéen ñi tam nasibun cër mim maktasab na si li ñu faggu dégg wasalullah wala nga ne wasalu ñaan leen allah yàlla min fadlihi si ngëneelam yàlla nee nag dee leen ko ñaan su boobaa yàlla jox dana leen jox ndax inna allaha nag yàlla alimun aji xam la wala kaana nekk na aliman di aji xam bi kulli shay'in si lépp loo mën a gis kon fu tollu rek dee leen ñaan yàlla waaw kon ki bëgg alal nay ñaan yàlla ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegoon nañu si ay yoon yoon yooyu ñoo yan soo loo bëgg a def mu jox la ñaan goo xam ne soo ko ñaanee yàlla yombalal la say mbir sa loola kon nag loola nañ di ko def gis nga soo ñëwee di dugg jàkk yàlla jox la ñaan nela la bi sallallahu alayhi wasallam xamal la ñaan ji nga war a ñaan gën ah boo demee na nga wax allahumma iftah lii abwaaba rahmatik yàlla maa lay ñaan nga tijjil ma buntu yërmande yàlla maa ngi lay ñaan nga tijjil ma buntu yërmande yi gis nga loola tey su fekkee heure booy dugg jàkk saxoo loola su boobaa nag da nga xéwal gu bari mën nga ko am soo jullee ba pare lu des dem liggéey ye mu ne booy génn neel allahuma inni asaluka min fadlik yàlla maa ngi lay ñaan sa xéwal yi nga denc yàlla yàlla nag ma si jox yàlla sa xéwal yi nga denc yàlla nag ma si jox allahuma inni asaluka min fadlik allahumma inni asaluka min fadlik kon nag day baax nit ki bu demee bay génn ci jàkka ja mu ñaan loola kon nag nee na na ngeen di ñaan yàlla wasalullaha min fadlihi inna allaha naka yàlla kaana nekk na dégg nga aliman di aji xam bi kulli shay'in ci lépp loo mos a gis wali ñeel na kenn ku nekk si nit ñi muy góor ak walla jigéen jaxal naa defal nañ ko mawaaliya ku war a méngoo ay mbiram war koo donn mimma taraka la bàyyi na ko alwalidaani ñaari wayjur wal aqrabuuna ak jege ñaale nee na kenn ku nekk defal naa la ñu la war a donn góor gi bu génnee àdduna am na ñu ko war a donn jigéen gi bu génnee àdduna am na ñu ko war a donn xale bi wala mag mi yépp am na ñu leen war a donn mu ne walladina gaa ñi nga xam ne foofu la xaaqattum faslante ngeen ak ñoom aymaanukum seen kóllëre yi dégg nga ñooñ de fa aatuhum jox leen leen jox leen leen li nga xam ne mooy nasibahum seen cër yi su fekkee dafa am loo xam ne da ko koo digoon nit ne ko danaa la ko jox nag yàlla nee na loola moom na ko joxe moo tax léeg-léeg nit bu génnee àdduna ñiy def dénkaane ya nga xam ne daf koo dénkoon lii nag bu njëkk la daan am nga xam ne ku génn àdduna rek ki nga xam ne da ko waxoon yow su ma deexee sax nga donn ma dalay mujj donn waaye nag loolu ba yàlla indee aaya ba sa suratul anfal ne wa ulul arxaami baaduhum awlaa baadin si lañ folli loola nag mu ne inna laaha naka yàlla kaana nekk na shahidan di aji fekkee ala kulli shay'in ci lépp loo mën a gis rijaalu góor ñi xawaamuuna ñooy taxawee lépp jigéen ñi xalal nisaay ci jigéen ñi li mu bëgg a wax mooy góor ñi ñoom la yàlla boole ak jigéen ñi ñuy yilif leen waaye day am ay condition benn bi ci jiitu mooy kàddu gi yàlla jël jox ko góor bi ma faddala allahu si li yàlla gënal baadahum ñenn ci ñoom ala baadin sa ñeneen ña yàlla jël kilifteef ko jox ko góor gi wa bi ma anfaqu ak dépensé di nga xam ne dana koy joxe min am amwalihim ci seen alal yi nee na yéen góor ñi kër yi yéen a koy yore yéen a yore kàddu ga waaye la nit ñay lekk ak la ñuy naan tam yéen a ko yéen ko yore yéen a ko war a joxe nga ne ko waaw jigéen ñi ñoom lu ñu war a def mu ne ñoom nañ fexe topp seen topp seen borom subhanahu wa taala suñu jaamoo yàlla ba pare fexe ba topp seen borom kër ci lu neex yàlla nee na loola rek mooy li nga xam ne moo moo war jigéen ñi moo tax mu ne fa saalihaatu jigéen ñu baax ñi qaanitaatun way topp lañ dégg xaa woy topp lañ seen borom wala nga ne woy topp lañ seen borom kër xaafizaatun woy wëttu lañ seen borom kër wëttul ko seen bopp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na xayru nisaa allati ida nasarta ilayha na jigéen daal bi ci gën mooy koo xam ne soo ko xoolee mu kontaan loola waaye soo fi neexut mu euh, wëttul la sa alal wëttul la sa njaboot dégg su defee su soo waatee ci moom ne soxna si du def lii du ko mos a def nee na daal mooy ki gën ci jigéen ñi dégg kon nag a qaanitaatun way topp lañ xaafisaatun way wëttu lañ lil xaybi si fàddu bi ma xafisallaa ci li nga xam ne yàlla wëttuloo a leen ko yàlla nee na wallati ndaw si nga xam ne taqaafuuna ragal ngeen nusuusahunna seen ak foñ mu ne jigéen soo ko yoree mu dem ba nara moy moo xam muy moy yàlla wala muy moy borom jëkk borom këram si topp yàlla nee na li jiitu mooy faizuhunna waar leen leen yàlla étape bii la bëgg ñuy jaar jigéen su commencé jaar beneen yoon bu bokkut ak bañ ko bëggee woon ba jiitu mooy nañ ko waar soo ko mëntu waar nga wooxi ku la ko waaral <clears throat> waaw nga bañ koo def nag waaru intellectuel yi waxtaanal maag soxna si sa bu mu xam ne maa wax ak yow loola du sotti waaw ndax soxna si soo bëggee ñu waxtaan ak moom dañ koy wax li xew waaye waxtaanal maag soxna si te bu mu xam ne maa wax ak yow léegi su boobaa nag yow da ñëw di gaaruwaale rek li baxut ku def ni nangam mu yafa mu ne waxoo ko keneen ngay wax so ni lii baaxut mu ne wa wax nga deug de li baxut waye nit bo bëggee defer diggante da ngay ñew ne ko ah diw nee da nga def nangam nangam bobu lu tax nga def ko li de def ko baxut nañ ko bàyyi waye ñew tok rek nan nangam baxut moom mu ne li ngay wax kana xamone ne bi yeb li ko teree jeg xam nga lan lepp lépp wax ku nekk japp ne du yaw waaw eh, lolu aaday nit la soo ñëwee ne <clears throat> lii baaxut tey tawut kenn ku nekk jàpp ne la teree taw du si moom sa keneen la nga ne ah <clears throat> comme nit ñaa ngi def nangam comme nit ñaa ngi def nangam seet ya nga xam ne yow doo koy def nga tudd yooya waa léegi nag yow yaa ngi bàyyi ya nga xam ne yow yaa ngi koy def moo tax mbir mi du mos a baax kon nag <clears throat> soo bëggee ku la waxtaanal ak soxna sax da koy wax la xew moom itam bu demee toog wax a soxna sa la xew su boobaa mu baax moo tax mu ne fa saalihaatu jigéen ñu baax yi déedéet mu ne ndaw si nga xam ne da ngeen ragal ci ñoom ak jenga ak mooy yàlla bi jiitu mooy fa izuhunna waar leen leen su waar ba jëriñut wax juróohunna ngeen tongu leen filma daaji isa tëddin ñi mooy bu leen bokkateeg moom lal soo defee loolu jëriñut wadribuhunna dóor leen dóor leen leen waaye fa iza ataanakum wala fa in ataanakum suñ leen toppee mooy lan dangaa waar mu jëriñ kon bu boobaa nag bul def ba sa topp wala nga waar jëriñut nga tong sa lal ba mu jëriñ kon bul dóor waaye léegi ñu bari nag fa ñuy njëkkee mooy dóor doo waar doo tong da ngay xëy suba rek dóor wala nga xëy suba te téye sa dépense dootoo ko joxe déedéet jigéen loo ko mere mere mere mere mere fekk yaa ko bàyyi sa biir kër danga ko jox mu lekk danga nga ko jox mu naan yàlla moo tax ba muy wax tongu leen boolewut ci lekk boolewut ci naan ndax nit mëntu ñàkkaa lekk mëntu ñàkkaa naan te loola sax du defar day gaaw a jeex di ndax nit ci boo ko tëjee sa kër nangoo ko jox mu lekk ñaari fan ñett mu dem ñibbi waaye nag kay su fekkee ne tong salal la loolu mu mën ngeen koo def ba mu yàgg su mbir ma di réglé wu réglé wu su réglé wu du réglé kon nag yàlla lii la wax bi jiitu mooy waar leen ko ñaareel bi ngeen bàyyee ko lal ba ñetteel ba ngeen dóor yonent bi sallallahu alayhi wasallam nag nee na xayra mu barrax bu leen ko dóor dóor yoo xam ne day day ñëwi wala muy dem fa in ataanakum buñ leen toppee sa bu njëkk ba fala tabxu bu leen sàkku alayhinna si ñoom sabilan yoonu ñaareel ba waaye ko nag bul tëb rek dóor inna laha nag yàlla kaana nekk na aliman di aji xam waaye kabiran di aji màgg mooy yéen ñépp moo leen ëpp doole mu ne wa in xiftum bu ngeen ragalee moo tax sëy yi buñ ko doon deferee nii tas tas du gaaw waaw fekkoon ne nii lañ koy defee tas du gaaw mooy bi jiitu mooy waar ba sa topp mooy tong ba toppaat mooy dóor dóor yu yem ba toppaat mooy wa bii muy bëgg a wax wa in xiftum bu ngeen ragalee shiqaaqa baynihima dëngoo ak seen diggante fabxasu yebal leen xakaman ay attekat min ahlihi fami ku góor ki wa hakaman ak ak ñu xereñtam min ahliha fam ko jigen ko moy nañ seet ña gëna rafet xel te bëgg lu baax sa fami góor ga setan ña gëna rafet xel te bëgg lu baax sa fami ku jigen ka ñu dajale ñaari fami yoya ñu waxtane sey bi yalla neena suñu ko defé ñaari mbolo yoy seen xol yi and rek yalla deppale seen diggante sey ba baaxat motax mu ne in yurida ñaari kuréel yi suñu bëggee islaahan defer yoo fi yàlla dana dëppale baynahuma seen diggante inna laa nag yàlla kaana nekk na aliman di aji xam xabiiran di aji dañ ko dégg waabudullaha jaamu leen yàlla wala tushriku bu leen bokkaale bihi ak yàlla shay'an dara wa bil walidayni wala wa na ngeen rafetal ihsaanan ak rafetal bil walidayni ci ñaari wayjur yi nga ne ko ci ñaari wayjur rek lay rafetal mu ne déedéet wa bisil qurba sa rafetal jëm ci ñoom nga ne ko ak ñan mu ne wal yataama jirim yi na rafetal jëm ci ñoom mooy ñi seen baay génn àdduna te majeure guñ mu ne wal masaakin yi ak miskin yi na nga rafetal jëm ci ñoom nga ne ko ak tan mu ne wal jaari zil qurba dëkkandoor bi dëkk yow ba pare te jege la ci deret mooy ngeen bokk xam nga am na dëkkandoor boo xam ne dëkk na ak yow waaye bokk leen yaay bokk leen bàyyi bokk leen dara loo xam ne xam nañ ko lu sa aadama rek ngeen bokkee waaye am na dëkkandoor boo xam ne dafa dëkk ak yow ba pare ngeen bokk deret bokkaat benn palaas bu ngeen dëkk kon kooku ñetti àq lay am ci yow benn àq bi mooy àqu dëkkandoor bi ñaareel bi mooy àqu mbokk ga ñetteel bi mooy àqu lislaam ga ñetti àq yooyu lay am ci yow moo tax mu ne wal jaari zil qurba dëkkandoor bi dëkk yow ba pare te jege la si si eh, deret beneen bi mooy wal jaaril junubi dëkkandoor bi nga xam ne danga dëkk ba pare waaye nag bokk leen dara sa aadama rek ngeen ngeen bokkee wa saahibi bi jambi ak ki nga xam ne dafa ànd ak yow dafa ànd ak yow si tukki waaw kooku tam sa dëkkandoor la ki ngeen bokk oto ba ba ngeen di wàccee sa dëkkandoor la waaw am na ñoo xam ne nag si oto yi lañ gën a mën a loree nit ñi waaw nekk si oto nit ñaa ngi sonn ngay coow débat bu nekk nga dugg si nit ñi mënuñoo wàcc mënuñoo ñàkkaa déglu sa waxtaan yi léegi nag su boobaa ngay sonal nit ñi ak coow lu bëri oto du waxtaanee kaay yenn waxtaan yi am na waxtaan yoo xam ne denc ko ba dem sa kër waaye dugg si oto mbële la la loolu kenn du ko def na xam ne ñii nga dëkk dëkkandoor googu nag moo gën a garaaw xam nga lu tax dëkkandoor boo xam ne nii tey su ngeen wàccee keroog nga ko soog a gis te boo amul sens ba yowmal xiyaam doo doo ko gisaati nga tooñ ko bàkkaar yóbbaale bàkkaar doo ko gisati ko baal ma àq doo taseeg moom tabaski ne ko baal ma àq doo taseeg moom korisi ne ko baal ma àq ndax dootu ko gisati si àdduna te yaa ngi ko yoreel ay àq dëkkandoor googu ju jara moytu la ki nga dëkk ak nii sax léeg-léeg mën ngeen a baxalante àq léeg-léeg mën nga ko defal lu ko kontaan loo mu baxal la àq waaye kee nga tefeg sa oto ba kooku moom xamoo fu mu lay giseeti ak foo koy gisee mu ne wab ni sabili ak gan ñi nee na gan ñi tam na ngeen leen nangeen leen di nangeen leen di eh, baaxee di leen teral gan gan l'islam da ko fonk moo tax ku bëri day wax gan ndax gan dafa métti nit koo xam ne tey bam ne xee këram lépp moo ko doon defal boppam tey nag mu ñëw foo xam ne lépp lu mu def dañ ko koy wax balaa añ fal yu kërum day fa yonent bi képp ku gëm yàlla gëm bis bu mujj ba del teral sa gan tey koo xam ne tey bi mu nee këram su bëggee dem ci toilette day waaxu dem tey balaa dem day laaj balaa sangu day laajte nu may def ba sangu balaa tëdd dana xaar ba ñëpp tëdd ñi lalal ko mu soog a tëdd balaa lekk dana toog bu xiifaatee ci diggante bi xamul feneen fu mu mën a lekkaate lu toog xaar ba lekk jot ma tax mag ñi niñ daan def mooy gan bu ñëwee rek nga daw indi potam ndox jox ko mu naan su fa lekk jot desee nga yëkkati jox ko ndax mën na nekk fa mu jógee sori na lool kooku nañ ko roy yonent yàlla ibrahim dégg nga alaa taaka hadisu dayfi ibrahim is daqalu alayhi fa qaalu salaaman qaala salaamun qawmun munkaruuna faraaga ila ahlihi fa jaa bi hijlin samin xoolal gan ñi ay malaaka lañu waaye comme melokaanu nit lañu mel ñëw si moom ba ñu yegg si rek mu dem rendi aw nag ñëw dem lakk ko ba mu ñor indi tegal leen gaa yi euh, toog di xoolante kenn lekkul mu jàq ne ala taakuluun xanaa du ngeen lekk gaa yi noppi rek mu ne ala taakuluun gaa yi noppi fa awjasa minhum xiifa mu commencé na ragal xaalu ñu soog wax nag ne ko laa taxaf bu ragal waaw ñun de ay ndaw lañ yoo xam ne sa boroom moo ñu yónni ñu war a dem pour alal ñu su yónnante yàlla loolu gan nii lañ koy toppatoo bu yegsee rek seetal la fa gën a jege waaw comme def na gaa yi defoon rek toog gan gi ñëw nekk moom dafa yendoo dox amut lekkut ba yegsi ñëw waa kër ga mu toog rek mu ngi tëdd fi mu tëdd na lool gaa euh, moom lan moo lan moo gën a lan moo gën a gaaw pour ñu defal ko gan gi pour mu lekk gan gi ne foñse waaw moom mu ne foñse xam naa pël la waaw gars yi ne lu gën a gaaw pour ñu defal ko gan gi gan gi ma na noppi waaye xiif na ba sonn mu ne foñse waaw mu ne foñse moo gën a gaaw kon nañ jëndi mburu ma rek daggate ko def si meew ak ndox rek jox ko mu lekk ko xam nga ne xiif na waaw léegi nag loolu mooy tax dégg waaw dégg kon mu ngi noonu wal yataama wal masaakin wabni sabili kay aso mu ne wa oh, wa ma ak la moom na ko ay aymaanukum seen ndeyjoor yi inna allaha yàlla laa yuhibbu du bëgg man ku nekk muxtaalan di rëy rëylu waaye faquuran di di puukare alladina ne yabxaluuna dañuy nay aka am ba pare di digal nit ñu nuy nay yow kay lu baax soo ko defut su ko keneen di def bul ko tere moom moo am alalam di ko saraxe yow lu sii sa yoon yàlla nee na am na si àdduna bi ñoo xam ne tey soo yëkkati woon dara jox ko taalibe ñu ne ah ñii dañuy ñii dañuy taxawaalu rek jërul nga leen koy jox déedéet ñii nga koy jox bu fekkoon ne ñu ngi seen kër baay du ñu ñëw tàllal seen loxo di la ko laaj dañoo amul te yàlla moo wax ne nañ leen jox walladina fi amwalihim xaqun maalumun lissaaili wal mahrum yàlla nee na am na ci ñoo xam ne ci seen biir alal yi daf si am benn cër bu ci yàlla dencaale ñen la ko dencaaleel li saa ili yalwankat yi wal mahrum ak ñi nga xam ne nii dañoo nekk si kër yi ñu xañ leen seen cër yi ñu waroon a am yàlla nee na ñooña ñooñ lañ koy jox <clears throat> waaye na am na ñoo xam ne nii ñoom yabxaluuna dañuy nay wa yamuruuna ñiy digal annaasi nit ñi bil boox li ci nay wa yaktumuna ñii nëbbu ma ataahumullahu la leen yàlla jox min fadlihi sa ngëneelam waxta danaa préparel nañ lil kaafirina ñeel yéeféer yi azaban bugal moo xam ne muhiinan bu leen di doye dal wallazina ga ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy dépensé amwaalahum seen alal yi ria annaasi ngir ngistal nit ñi wala yuminuuna du ñu gëm billahi si yàlla wala bil yawmil axiri du ñu gëm tam bis bu mujj ba yàlla nee na ki nga xam ne buy joxe ngistal la say def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ngistal daf ko tuddee woon bokkaale bu ndaw ndax dangay ngay bëgg a jëf ci nga boole ko yàlla ak keneen moo tax ba muy wax dafa wax ne inna axwafu ma axaafu alaykum ashirku al asqar qaalu wa ma shirku al asqar qaala arriya waaw mu ne li gën a rag raglu tama ragal ko si yéen mooy bokkaale bu ndaw saxaaba yi ne ko lan mooy bokkaale bu ndaw mu ne mooy ngisal ngisal mooy lépp looy def il faut nit ñi gis ko nga soog koo def bu fekkee nit ñi gisuñ ko nga ba ko kon kay loolu bokkaale la dégg mu ngi noonu mu ne wa man yekku ni ku nekk a seytaanu yi xarinan di nekk xaritam di lëkkaloo moom ah kooku de fasaa ak ñaaw na fasaa ak bon na fa ah, dégg nga xarinan ak ak jegeñaale waaw <clears throat> mu ne wa maza alayhim lan moo leen war law amanu ba ñu gëmoon bi billahi ci yàlla wal yawmil axir ñoom bu ñu gëmoon yàlla gëm bis bu mujj ba lan la leen lan la leen di wàññi wanfaqu ñu dépensé mimma razaqahumullahu la leen yàlla wërsëgal ñu koy dépensé konoon su boobaa leen di wañ mu ne wakkaana nekk na allahu yàlla bihim te ñoom aliman di aji xam inna allaha naka yàlla laa yazlimu du tooñ misqaala zarratin lu tolloog benn pepp zarra yàlla du ko tooñ wa in taku nekkee xasanatan lu baax yudaifha da koy fulandi mooy da koy multiplier wa yuti dana jox yu yudaaf da koy fulandi wa uti dana la dikkee dafa mel ni bi mu ne dama koy multiplier nga ne ko waaw leneen la may jox fu mu jógee mu ne min la dund mu ngi jógee ci yàlla waaw waaw wa yuti dana joxe miin la dunhu la jógee sa moom ajaran muy fay boo xam ne aziman bu mag la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne mu ngi jàngaloo am na ñu wax ne Abdullah ibnu Mas'ud la ku neexoon baat la mu ne ku kay jàngal ma alxuraan mu commencé di jàng alxuraan rek ba ba yegg ci aaya ji ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam commencé di jooy lan la yàlla wax ci aaya ji fa kay fa nan ngay def yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sa yéeféer yi iza ji'na bu ñu dikkee min kulli ummatin bépp xeet shahidan bi shahidin ci ku leen di ñu indil leen ku leen war a seede yow nag wa jig naa ñu indil la bi ka si yow xalaa haulaay si ñu bon ñi shahidan nga war leen a seede su boobaa nooy def ñëpp ñu indil leen seen xeet yi ne nañ leen seede yow ñu bon ñii ñu indil la leen nga bar leen a seede nu leen noo war a def ci la yonente bi salaay salaam jooy yàlla ne yow ma isin bi keroog bis boobu yawaddu dana ngéeju alladina ñi nga xam ne kafaru weddi nañ wa asaw te ñu moyoon ar law tusawwa ak neexon ñi yemale de nga bihim ci ñom al ardu suuf si da nga gis ko xamne day wax nan ak neexon ñi jël ma mokkal ma jaxase ma ak suuf si ndax buñ ma dekkal de nga waaw moy mom la wax sa sar wone fa yaqulul ya laytani kuntu turaban waaw ak neexon ma nek suuf da nga gis ko xamne ne moom mu ngay geejju law tusawwa bihimul arda ak neexon ñi yemale ko ak suuf ndax la boole ko ak bàyyi ma ya nga xam ne dañoo dee rek yàlla yemale seen ak dundu foofa mu ngi noonu sax wa yaqulul yàlla yaa laytanii kuntu turaaban mu ne walaat yaktumuuna du ñu nëbbu allaha yàlla hadiisan benn wax bu yawmal qiyaamee bépp wax boo xam ne yaa ngi ko doon nëbbu boo demee foofa dootoo koo mën a nëbbu dégg wala yaktumuuna laa hadiisan yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm yàlla laa taqrabu bu leen jege mukk salaata julli wa antum te yéen sukaaraa yéen ngi màndi te waxoon naa la sababu nusulu aaya bi ba ñuy tollee sa suratu baqara mooy kenn ci saaba yi bi muy jiite te mu ngay jàng euh, alquran di ko jaxase fekk mu ngi màndi yàlla ne bu leen jegee ti julli mukk fekk yéen yéen a ngi màndi hatta taalamu ba te ngeen xamee maa taquluuna li ngeen di wax wala junuban du caagini ku am janaba ku am janaba nee na bu mu bu mu jegee julli janaba mooy képp koo xam ne da ngaa génne maniyu xurujul maniyu bi lazatin mudaadatin fii naw min aw yaqsa maanaam koo xam ne da ngaa génne maniyu bu ànd ak bànneex moo xam da tëdd nelaw gént génne ko moo xam bi nga koy génnee yaa ngi koy yëg kooka nee bu mu jege julli lu dul mu sangu farata walla ki nga xam ne dafa sëy doon te mën yu génnut nee na kooku tam bu mu sang bu mu euh, jege julli ga te fekk sanguwut loolu la ñuy tuddee janaaba mu ne illaa birin lu dul koo xam ne day jéggi sabila aw yoon su fekkee nag yoon la dégg nga yoon wa dafa jaar ci kuuru jàkka ja nga jaar sa rek jàlla waaye julli taxul laa ne dem mën a nekk xatta taxtasilu ba ta ngeen sangoo dégg dégg léegi wala nga ne <clears throat> bu fekkee dafa nekk xaabiri sabil mooy kay tukki te moom mu ngi am janabat kooku tam mën na nekk maanaam am na janaba mu ngi ko fekk ci jamonoy tukki amul ndox mu mu sangoo kon na ko su boobaa waaye am na lu mu jàppee kooku du jàpp day tegu ndoxu jàpp ma dem siin ñëw julli yàlla koy wax sa suratu maida wa in kuntum junuban fa taharu wa kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min alghaid aw lamassumu nisaa falam tajidu maan fatayammamu saidan tayiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum dégg mu ngi noonu dana ko waxaat sax fii si kanam kon mu ngi noonu dana ko waxaat si kanam <coughs> kon tey su fekkee nag dafa nekk xaabiri sabir <coughs> koo xam ne day tukki yàlla nee na bu leen julli fekk yéen a ngi am janaba mu ne ba mu des kay tukki kay tukki moo tax gis nga janaba <coughs> su neexee ci yow yaa si ba moo tax soo ko xasee am dañ lay tere sax biir boobu nga jàng alquran fekk ba janaba bi di setee waaw kon ila abiri sabil xataa <clears throat> taxtasilu wa in kuntum bu ngeen nekkee marda di feebar aw xalaa safarin wala ci tukki nag aw jaa aldu foofu hmm? wala mu dikkal ahadum kenn kum kenn si yéen min kum si yéen min al xaayiti aw laa mastumu nisaa wala ngeen laal jigéen nag falam tajitu te amu leen maa an ndox fa tayammamu tiim leen saxiidan fàkk foo xam ne tayiban bu taab la bu laab la famsahu ngeen masa bi wujuhikum seen cëlmaay wa aydiyakum ak seen loxo bu fekkoon nag sa beela sa sootu maayida wa aydiyakum minhu lay wax minhu inna laaha naka yàlla kaana nekk na gafuuran di aji baxale dégg nga dégg nga afuwan di aji baxale gafuuran di aji jéggale alam taraka naa gisoo ila alladina jëm si ñi nga xam ne uutu joxeef na leen nasiiban cër minal kitaabi ci téere bi am na ñoo xam ne yàlla may na leen xam-xam te muy ay yahud yastaruuna ñi jëndee addalaala te réer ñu koy jëndee bil huda ci njub wa yuriduuna bëgg nañ anta tadillu ngeen sànku asabila yoon wi wallahu yàlla aalamu xam ne bi aadaikum seen noon yi yàlla xam na leen wa kafa doy na billaay ci yàlla waliyan muy aji méngoo seen mbir wa kafa doy na billaay si yàlla nasiban nasiran muy ak ndimbal dégg mu ne min alladina am na si gaañi xam ne haadu ay yahud am si ñoo xam ne dañuy soppi kalaamallah a dégg nga dañuy soppi alkalima waxu yàlla ji an mawaadiihi ci ay palaasam wa yaquluuna ñii wax nag naan sami'naa dégg nañ wa asaynaa mooy nañ wasma déggal waaye xayra musmain nga bañ a nekk ku ñuy déggal pour déggu jëfee dégg ñoom ñoo doon wax naan raina wa raina ñoom ñoo daan wax te bu buñ koy wax layyan ñi ngay nooyal bi alsinatihim seen làmmiñ yi wa taanan it ngir ak jam mooy di koccal yenente bi sallallahu alayhi di ko ayibal fi diine ci diine l'islam yàlla ne wala annahum su fekkoon na ñoom xam nga yàlla waxoon na ko ci ginnaaw laa taqulu raaina wa qulu nsurna wasmau mu ne walaw annahum su fekkoon ne ñoom qaalu wax nañ ne samina dégg nañ wa ataana topp nañ wasma déggal wan na ak muñal ñu nee na ñu waxoon loola de lakum moo gën xay dégg nga lépp lakkaana dana nekk xayran di gën lahum ñi leen xam nga baat yee yëpp dañ leen ko tere dañ dañ leen ko tere mooy lan samihna wa asayna dañ leen koo tere wasma gayra musmain loolu dañ leen koo dañ leen koo dañ leen koo tere yàlla nag ni loole yëpp dañ ko waroon a remplacer sami'na wa asayna dañoo waroon wax ne sami'na wa ata'na dégg nga wasma xayra musma'in dañu wax yàlla ne suñu waxoon wasma kese dana doy ra'ina dañ doon wax suñ ko bàyyi woon ne unzurna konoon su boobaa la kaana dana nekk xayran di nekk yiw lahum ñee leen wa aqwamu te gën a jub wala tin waaye la'anahumullahu yàlla soril na leen yërmane bi kufrihim ci sababu seeni weddi fala yuminuuna du ñu gëm mukk illa qalilan lu dul ñu tuuti si ñoom yaa ayuha alladina utul kitaab ee yéen ñi nga xam ne yàlla jox na leen téere yi aminu gëm leen bi ma nazalna ahlul kitaab yi lay wax muy yahud yeeg nasraan yi mu ne leen gëm leen bi ma an bi ma nazalna ci li nga xam ne ñoom lañuy wàcce mu musaddiqan muy dëggal lima maakum li àndoon ak yéen min qabli an natmisa njëkk ñuy marmaral muy ñuy maasere wujuhan seen cëlmaa yi fa naradduhaa ñi delloo ko ala adbaariha sa ginnaawam li jiitu loola na ngeen dellu si yàlla aw nalhanahum walla li ñu leen di rëbb kama lahan naa comme nañu sorilee woon yërmande ashaaba sabti waa gaaw ga yàlla waxoon ne kunu qiradatan xaasiina sa suratul baqara mu ne wakkaana nekk na te mosul dañ amrullahi mbiru yàlla mafmulan jëli ñu inna allaha naka yàlla laa du jéggale an yushraka ba bokkaale bii ak moom bii yàlla nee na du jéggale ku ko bokkaale ba dee moom waaye wa yaxfiru dana jéggale ma duuna zalika lu bokk toon loola liman yashaa ku ko neex maanaam toog toog rek jéggale ko nee na du ko def te loolu nag lu neex a lu neexa a lu neex a ci àdduna ndax am na tey yenn bakkaar yu mag yoo xam ne am na tey loo xam ne nit ki bu fekkee da la koo yoreel mu tuuti bu la neexee baal ko ko waaye nag tey ki nga xam ne daf la yoreel ay milliards wala ay millions. ñi teg ko fekk mu ngi tëdd si ah, bàmmeelam ñu war koo denc néew na ku fi taxaw ne ah man yoraloon na ma lii waaye banaa ko yàlla tam nee na loolu la rek bàkkaar yu ndaw yi soo ko bàyyee rek nee na su boobaa nag yu mag yi dégg nga ah, ñi ñi jéggal la yu ndaw yi kay maanaam soo bàyyee yu mag yi rek nee na mu jéggal la yu ndaw yi dégg kon nañ ko nañu moytu bàkkaar te yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne benn bàkkaar tuutiwut bàkkaar yi kay kanaa yi gën a rëyante waaye bu tuuti moom amul ndax bàkkaar bàkkaar fekk yaa koy def day gën di dolleeku ngay defaat muy gën di ko bu yàggee day rëy kon nag bu boobaa tuuti dootul amati gis nga tey kilo suukar balaa koo nekk pepp yu ndaw la woon ñiy dajale pepp yi di ko dajale ba mu mujj nekk kilo di dajale waat di dajale ba mu nekk saako di dajale waat ba mu nekk oto ba mu fees soo koy xeeb bu yàggee rek day mujj nekk nekk lu bari waaye yàlla bu toogee rek di jéggale yu ndaw ya lay jéggale waaye nag du toog rek jéggale yu mag yi kon nag nañu ko moytu baax dañ li ma yéesa mu ne waman yusrik ku bokkaale billaahi si yàlla faqad iftara duutal na sosal na yàlla isman bàkkaar boo xam ne asiman bu màgg la alam tara kana gisoo ci ila allazina jëm si ñu nga xam ne yu sakkuuna dañuy jéem a sellal anfusahum seen bopp dégg mooy lan mooy ñu doon wax naan nahnu abnu abnaullahi wa ahibbaa waaw ñu ne ñoom ñooy xaritu yàlla yi ñooy doomi yàlla yi waaw yàlla waxoon na ko sa ginnaaw qul fa may lima yuasibukum kon nag bu boobaa lu tax yàlla di leen mbugal su fekkee ne yéen la moo tax yàlla day wax loolu lu bari day bañ nit ki di tagg boppam boo demee surtout nañ mi sax wax na ko fa mu ne falaatu zakku anfusakum huwa aalamu bi man ittaqa mu ne bu kenn tagg boppam ndax yàlla moo gën a xam ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ak ñi nga xam ne ragaluñu ragaluñu yàlla dégg dégg moo tax mu ne alam tara ganaa gisoo ila lazina jëm si ñi nga xam ne yu zakkuna dañuy jéem a sellal anfusahum seen bopp naxnu man te mooy ñuy wax ne naxnu abuna allah wa ahiba bal li fi nekk allahu yàlla yu zakki mooy sellal man yashaawu ku ko neex wala yuzlamuna deful leen tooñ ba di leen wàññil dégg nga fatilan lu tolloog mbubb bi ëpp ëmbu tàndarma bi xooxu tàndarma xam nga lan mooy fatil mooy tàndarma boo dindee la ñuy lekk noona léeg-léeg nga gis mbubu bu oyof bu weex boo xam ne mu ngi sa kaw xoox ba loolu la ñuy tuddee fatilan yàlla nee lu toll noonu sax nañ ko koo wàññi unsur xoolal kayfa dara buub dëgg wala kayfa yaftaruuna naka la ñuy sosalee axalallaay ci yàlla ay alkaziba ay nar wa doy na bihi sa sosal yàlla isman bàkkaar mu biinan bu mag te mooy bi ñu waxee ne ñoom ñooy doomu yàlla yi ak ay xaritam alam tarakana giso gisoo ila alladina jëm ci ñinga xamne wutu joxe nañ len nasiban abtir min minal kitaab ci téere ba ñom de yu'minuna dañuy gëm bil jibti ci xaram yi wa taquti ñi gëm li nga xamne moy shaytané wa yaquluna ñi ngay wax naa lillazina ñeel ñi nga kafaru wedi nañ na len na len haulaai gaa ñii ahdaa ñoo gëna jup min minal lazina si nga xam amunu gëm nañ sabilan yoon munafiqi rek lay wax nee na ñoom dañuy taxaw di wax naan yahud yi seen yoon wa moo gën a jub li nga xam ne mooy yoonu jullit yi yàlla ne ulaayika ñooña allazina mooy ñi nga xam ne laanahumullahu yàlla soril na leen yërmande te waman yalahanillahu ku yàlla soril yërmande falan tajida doo fekk mukk lahu ñel ko nasiran ku koy dimbale am li ci nekk lahum ñeel na leen nasibun cër minal mulki wala nga ne am lahum ndax daf leen a ñeel nasibun cër minal mulki si nguur yàlla nee na ndax ñoom dañoo am nguur ah fa idan konoon laa yutuuna dañuy jox annaasa nit ñi naqiiran lu tolloog boppu tàndarma maanaam euh, tàndarma bi cat su ndaw soosa nga xam ne mën nga koo dagg ba pare soog a dindi lekk ga loolu la ñuy tuddee fatil dégg nga la nga njëkkoon a nag mooy euh, mbubb ba waaw mooy xasru bi waaw xasru dégg kon yàlla nee na moo tax gis yàlla dafa xereñ yàlla dafa xereñ ndax euh, li tax mooy lépp loo xam ne nit ñi suñ ko amut suñ ko amut dee loolu du ko teg ci loxo nit ñi xam nga nit ñi buñ naanul ndox dañuy dee yàlla ndox du ko teg ci loxo nit ñi da koy jël rek dencal ko boppam mu yomb lool nag beneen bi mooy oxygène bii nga xam ne dañ koy nokki muy ngelaw li yàlla bu ko tegoon ci doomu aadama bis bu meree waa Sénégal ko leen jox ndax tey xoola rek da ngay toog toog rek ñu xëy tëj rek ñenn rek xëy suba tëj seen frontière ñu ne kenn dootu dugg suñu réew la ngeen doon jëlee suñu réew yëpp dootu leen ko jëlee kon tey bu fekkoon ne oxygène bi dañ ko fay jëliwaale kon ñun dootuñu nokki waaye su ngeen ko amul dee dama koy jël dencal ko sama bopp kenn du leen ko mën a xaj waaw kon yi nga xam ne euh, ku ko amul dee yàlla da ko téyel boppam moo tax yàlla ne ñii su fekkoon ne damaa jël li ñuy soxla ci àddina bi jox leen ko konoon lu tollook daggitu boppu tàndarma sax duñ ko jox nit ñi waaw ndax iñaan te xool ko rek ci àddina bi bari na lool li nit ñi di soxla am ñoo xam ne ñu ngi ko yor tam kenn mënu si jot waaw mu ndax mu ne isan konoon laa yatuna naas du ñuy jox nit ñi naqiran dégg mu ne am yaxsuduuna ndax dañuy iñaanee annaasa nit ñi xalaa ataahum la jox na leen ko allahu yàlla min fadli yi sa ngëneelam mooy yenente gi yàlla def yenente sallallahu alayhi wa dañ ko koy iñaanee kanaa xamuñ ne faqad aatay waa fami ibrahima mooy ah, ibrahima ak ismaila ishaqa yaqub njabootam boobu yëpp yàlla ne joxoon naa leen ak ak ak nubuwa joxoon naa leen alkitaaba téere wal xikmata ak nubuwa wa aataynaahum joxoon naa leen mulkan nguur goo xam aziman gu màggal fa minhum am na man amana ku gëmoon bihi si yonente bi sallallahu alayhi wasallam wa minhum am na si seen yi man sadda ku wàññi woon walis diine yonente bi sallallahu alayhi wasallam wa kafa doy bi jahannama si jahannama sa sairan muy aji lakk ñi nga xam ne dañoo weddi woon inna alladina naka ñi nga xam ne kafaru weddi nañ bi ayatina suñu aay yi yàlla nee na ñi ñi weddi aaye yàlla yi yàlla nee na dama leen di lakk di leen lakk xam nga xam ngeen li ñuy tuddee xawaasul xamsa xawaasul xamsa xam nga ko mooy juróom yi nga xam ne ñooy yëg ci doomu aadama juróom yi yëg mooy bët day yëg mooy da ngay séen dara xam ne mu ngi nii bakkan day yëg mooy nga fóon ko xam ne mu ngi lii la gémmiñ day yëg nopp di yëg der di yëg juróom yi ñooy yëg tey boo laalee dara nga xam ne lii laal naa ko lii ma laal lii la maanaam daa sedd wala daa tàng nga laal ko xam ko nga fóon ko xam ko tey man nga toog rek am lu la xeeñ rek nga ne am na xet guy ñëw am na luy ñëw kon tey juróom yii la ñuy yëgee muy nopp ak bët ak bakkan ak gémmiñ ak der juróom yooyu nag ba sa ëpp doole moom mooy der moo ci ëpp doole moo tax yàlla bi waxee nee na bu nit ñi demee safara ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla yàlla da leen di lakk saa yu demee ba seen der yi ñor su boobaa mu remplacer waat der yi pour ñu mën a yëg nit it ndax booba der yi lañ koy der yi ci lañ koy yëgee dégg léegi nag am na benn scientifique boo xam ne dafa mës a gëstu pour maanaam mhm. ñeent yi di yéeg ban moo ci dàqaa yéeg bi mu ko demee ba gëstu ko ba gëstu mu mu dem ba xam ne nag lii tey euh, der la mu ñëw nag di def conférence ne loolu lay ñëkk laaj bi mu ko laajtee rek benn xale bu ndaw tontu ko mu jaaxal ko lool ne ko xale bi ne ko der moo dàqaa yéeg mu ne ko foo ko teg mu ne yàlla moo wax ci alquran ne ñi nga xam ne dañoo weddi yàlla danañ leen lakk safara kullama nadijat juluduhum baddalnaahum juludan xayraha li yazuqa al azab léegi nag ci la si la waaru pour mën a dugg si diin al islam moo tax alquran dara dara mel ni moom ndax nettali woon naa leen ko fi daaw médecin yi nga xam ne ñoo demoon ci benn dëkk di fa faj waaye nag di defaale daawa pour génnee ñi nga xam ne ñoo nekk si diin al islam pour décourager leen seen diina kenn ñew si ben xalé diko fajj ba si kanam mu ne ko waaw yeen seen téré bobu ñi wax alquran téré bi degg na répétition yi dafa bari mo da téré bi rëy waaw nga yaakar léegi répétition yépp moy yi nga xam dañ koy wax waxat ko yépp suñu ko dindi won téré bi du gëna a oyof gën a mën ne ko waaw xalé bi ne ko waaw su boba kay lay gëna neex mokal waye yu ci sa cër yi répété wu sa jëm ji yépp suñ ko wàññi hon nga yaakar sa jëm ji du gëna oyof dox am nga ñaari loxo ñi dindi ben ñaari tank ñi dindi ben ñaari bakkan ñi dindi ben ñaari bët ñi ben dindi ben waaw nga ko non sa jëm ji du gëna oya pour nga gëna mëna dox mu daw ba démé sa mbokk yi fi suñ fi toogee buñ fi yaggé ñun ñëpp dañ dugg ci l'islam waaw waaw ma tax yentu ya, bi sallallahu alayhi wasallam néna bo démé bay war nit ki dang koy war ci li tollok mom waaw ci li tollok mom pour mu mën la dégg mënoon na tok nan ko waaw waaye yalla ko bindee ni ñi la ko yalla bëggee su boba moom gëmul yalla du nangu waaye daf ko delloo si waat ci biir li nga xam ne ni moom mooy jëmmam pour mu mën see xamee boppam dégg kullama nadijat saa yu ñoree juluduhum seen der yi baddalnaahum ma remplacé leen juludan ay der xayraha yu bokkut ak yooye li yazuqu ngir ñu mos al mbugal mi ndax gis nga der tey li ëpp ci jëmmi nit ki soo soo soo si tegee sa loxo rek xam lan la moo xam sa jëmm ji foo si teg soo ko tegee si bopp nit ki dañ ko xam nag li bopp la soo ko tegee si tànk soo ko tegee si jaada bi xeer wi galaas bi safara si foo ko tey rek da ngay xam ne lii lii la moo tax yëg yëg bu am doole moom la der der di yëg waaw yëg bu am doole lay yëg waaw <coughs> dégg kon mu ngi noonu inna laa azizun hakimun والذين غاني نغا خاني امنو گم نان يالا وحملو ني دف الصالحات فرت يك نافلي سندخلهم دن لين دوغل جنات الجنة يو خامني تجري دنا داو من تحتها سسوبم الانهار يلني ينت خالدين ني سخ دك فيها فوبا ابدا ما فاو الجنة كو فا دوغو دوتو ген motax mu jara gor gor lu jamu yalla sallallahu alaihi wasallam fiha ma la aynun raat wala usnun samiat wala xatrun ala baal dëgg wala nga ne ala qalbi insan yent bi sallallahu alayhi wasallam nee na la ne biir aljana kenn mënul ko imaginer ba jot ko mooy mënoo di ko xelaat ba jot ko nee loolu bët mësu ko gis xam nga tey ba mu paree lu mu si rek fiha huurun xiinun tey boo xoolee yàlla sa wax na ne buñ demee aljana dañuy jox lu niroog lañ newoon fii waaye su boobaa cafka yi du wutee moo tax kenn mënul imaginer ba jot loola nu war a mel waaw la fa nekk kenn mënul xam nu mu toll léegi nag loolu moo tax kenn ku nekk war di góorgóorlu nga jaamu sa borom ngir nga dem sa aljana jooja te aljana jooja ñi yàlla gërëm rek ñoom la fay ñoom la fay yóbbu wane du xilihum mu dugal leen sillan ker yoo xam ne zirala yu law lañ ker yu sëq yoo xam ne nii ah du mosa du fi mos jógee إن الله